maa ngi sant yàlla bu baax a baax ndax tey liggéey bi metti woon na lool lool lool ndax si boo xamante ne dafa daan taaba yor ay taabu di jaay tey deer ñëw fekk la nga nekk si naaj bu tàng tey jëlee si tàng andi loolu sant yàlla bu baax a baax deer gërëm naa leen madame Aïda Mbodj gërëm naa la yéen a ngi jàppale xale jigéen man de maa ngi sant yàlla bu baax ndax naa dama dëkk tey képp ku waay xewle tey si mariage wala ngénte damay def déplacement dem servir la am naa sama équipe tey mbir naa képp képp ku toog moom mi naan yow ni nga def ba am lii ma ne ko parce dama ko ñafe si ànd laa tegoon di jaay sama attaaya di jaay tey xëy suba am sama taabu dee ñëw andi ma cantine may jaay maa ngi gërëm teer bu baax a baax a baax a baax madame Aïda Mbodj waa Medina kontaan nañ si yow ndax deer bi ma am tey jii ñëpp a ngi ci ma tourné ñoom ma naan noo am ko mais sant yàlla rek xam naa di ngeen ne bu leen jigéen bi ci ay ci vulgarisatrice jafe na pour nga gis ko xëy na raar na mais comme lu ñuy wax y a pas waa par chance ma bokk ci ñu DER financé ma gërëm vraiment waa DER franchement man bi ñu ma waxee voyage bi dama doon mel ni ko doon ma ne loolu loolu mënul nekk loo gëm rek boo ci demee ak passion ak pastef rek yàlla daf a jàppale bu baax a baax mosuma gëm ne damay dem France bu këram may dugg ma bàyyi ma fenn ba ni ma duggee avion damaa ci avion bi ma photo pour gëm ne maa ngi ci biir avion bi franchement en tout cas lii moom vraiment madame lu ñu war a appuyer la jàppale femmes yi jàppale jeunes yi parce que dañuy wax rek mais Sénégal dañuy woykati yi dañu ne ñaari loxo ñooy takk tubéy ñaari loxo mooy takk sër keneen ki felluwaat ko ne jigéen ñi kii Sénégal jigéen ñi ñoo ko yor ni jigéen ñi yoree Sénégal noonu la secteur secteur informel bi noonu la yoree Sénégal